noonu lañuy dundee dama fanaane wëlbatiku guddi xalaat ak fàttaliku sama xol moo fo fonku ganale mënuma muñ am loo dapat naik dafa sama xol bi te ki nga xam Demokrasi di dikkoon dama ko yar ci diini yar ko ci lislaam te li nga xam ni moom bëgg ci moom mënuma ko dema dema dema dem ba fii ñu toll xeebaande bëgg maa dal ci digg dëkk bi su ma demee ba naan dal ci sama duma am lenn lu may mën def ak loolu mu abal ma sama kër. dikkoon boko ko génnee kër gi fan la jëm dom ma yaakaar bu jubbu dang koy jubbanti bu mujju imam bo dikon boko boo ko kër gi mu gëna a man de dama lay ñaan ngir yalla ak yonent bi nga bañ ko kër gi te luñ ci man rek ñu def ko Ah, ah, soxna si baax na baax na. soxna si aw ma toogaay mu nekk. imam gannaaw yàlla dafa def ne man maay sa naayim fële ci jàkk ji li ko doore ci gox bi ba jàkk ja ñëpp mànkoo nañu nag nee nañu daal génn nañ la ci imam bi. ja moom fas tu ni yéene mukk nga diñ jiite ndax nee nañ seet nañ ne ñoom amoon nañ ceew yaakaar bañ la nomee fii ci ja nga nekk comme imam waaye seet nañ ne yaakaaroon nañ ne yow war nga leen mën a jubbanti teg leen ci yoonu siraatal mustaqim waaye gis nañ ne sa njaboot yow mënoo ci lan ku mënul lijjanti sa njaboot nag nan ngay lijjantee njabooti jàmbur te nag imaam jàng alquran nag li yàlla wax ci alquran xam nga ko kullukum raayin wa kullu raayin mas'ulun an raayatihi la yàlla wax ñun ñi ñëpp ku ci nekk ci ñun sàmm nga boo liggéey itam dañ la koy laaj loolu wax day yàllaa ko mu ngi ci ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبا سلام بوليس دكتور صعب لين صحلو agression ne fili lu sa tafaasaar di wut. nee nañ tafaasaar moo ko agressé. la ilaha illallah muhammad rasulullah. bis bu saxee non du la arrangé yow. waaw. ndax Tafa Sarr moo xam ne sa diggante ak Tafa Sarr. Mhm. mais fu mu ton nii lépp lu mu bëgg mooy coppati ndànk Tafa Sarr say loxo gérer moom. di kon saa Tafa Sarr man di kon man da daa lekk du ma manquant du ma pot jaar di kon ba may xëy 4 heures du matin ma ngay nelaw. loolu laa xam. fa ma toqalee di kon dafa siitalee. no amufide toog ah sama jàmm daan woote ñu dugg nga fekk ñu fa te léegi oh nga neex te nga trop waaye ni nga def di répété pourtant non répété ñu de ñoo toog di waxtaan makkal si léegi ah. imprévu la ñoo toog léegi di waxtaan dama laa soxla maa la deux mois rek vas mën nañoo wet ah loo gis waaw ah, nga ñuy fekkee maa moom ñuy jóg nga bëgg ko fekk nii jël ko nii nan nañ dem ah yow garaaw nga de ak say verre. dama nga toog. waaye sama kii da xajoo ci. sama yoon nekku ci ma mën naa laa gis wala mënuma laa gis. lu ngeen wax rek nag xam naa ko maa ngi leen di xaar. Nicht, الصبح yaa tiit nii saa lu mu def bañ jabaram la de turki jam bert ma woon bon rek ndey file ko def i ñaan def gis nga boñ koñ ba ta topp fa la ndey la bëgg bëgg di ko nu di ko li ñuy toogaal ko di ko ma da nga dem Diko. Dikoon kan moo la def yaay xaw sax kuma ma xaañ damay dox ci mbedd mi rek xeer bi yegg si kaw xaañ di ko new si gi xool ma fi lépp ko xaañ booy sama rek loo booy pare ñëw fi naan booy xoolal ma de yow bàyyi sama yére eh, taxawal ngay kii a xel ma mu demee nga neex yaa ma ma ñëw di ko wax ni carrément dañoo arrêté docteur Sarr eh, yaa xaañ boobu ñuy wax nga fi di di am na dañaa itam tooy lu suñu yoon tabasaare. eh njool njool li mooy lan. maa ngi jégalu. ah doole góor ak doole jigéen yamul. imam bu leen fekkee nii ngeen di def man lan laa koy wax. non mère dafa xaañ dikkoon ba pare ñëw fi di teg xel xam nañ lépp mu demee. kii man mi kon la mu dikkoon indil. Ah, ak lu ci mënti am rek yow ya waroo fajee nii mer léegi comme da nga mer deman nga doxantu ci ba sa xol nga ñëwaat. demal demal nga doxantu ba sa xol gis nga ñëw demal demal defal li ma la wax nga dem. naka loolu mère bi yow xamante ne yomb yow. dama def dërëb heure 14 février su ma la keppee su ma la keppee. salaamaaleykum. Eh, andi ko. sa problème ak Ndeye Fili ban problème nga am ak Ndeye Fili Tafa am ba nga koy agressé. Hmm? yaay yow yaa mu jur man lu ma def xam nga ko lu ma deful xam nga ko bien vrai que nag fan yi mën ak Ndeye Fili am nañu problème te yow mais mun naa laa waatal ci yàlla.

man suma la xolé dina xam ne yaa ko def waye dama bëgg nga def ni sa xel ta nga dal te xam ne fii di fi genn dafa fii di sa place dama la fiy génnee. Eh, alors Kölz. walla naka waar. lépp jàmm nice. maa lay xaar sànq ba léegi xaaral Boy, jaaroon. booy dama foo ma jaaroon gaañ. ok ok booy man maa la wóoroon quoi.

do

mais plutôt le contraire. Ah bon En fait, c'est vrai que hier nuit, man ak moom ñoo nekkoon man Tafa Sarr. ah bon waaw mais ñu sommes séparé wu 2 heures du matin. ah bon. ah oui. ok. moo tax agression bi ñu naan mo Sarr moo ko def moo ko def te boo ko bu baax. Mm-hmm.

ay seetee ci suba après policier bi bi mu ñëwee mu jël si Tafa mu ne moom lañ ko jiiñ même su fekkente ni dañ ko agressé du docteur Sarr moo ko agressé gis problème bi man dinaa ko régler Talilu Njool. boo yaa may xaar la foofu boobu léegi tamit fa nekkoon. waaw mooy su dama fu ma jaaroon moo tax. ah yow daal non benn affaire boo dara ak dikkoon non booy il faut nga génne leen group bi parce que ñu ngi def lu ne di yàq dara groupe di yàq suñu dara ñu ñoom suñu yoon newu ci. mais bu jëndee di am. Dada lañu wara jënd groupe yo gis nga ne di ko ñu ngi ko xañ te li ko yëpp dadaa jëndul mi ci biir bu dada jëndé groupe bi man ma démissioné nga ni bu dada jëndé groupe bi man may démissioné man dabal ah, ba yàq tare neex boy parce que lool tegoo ko fenn boy yeen troupe bi nga démissioné ak dada démissioné diko di ñëpp ci laa la fi troupe bi day dem lima la wax nag nangoo ko gëmé mais liñ ci tek sa bari yàggatul dara boy man may désité ok ok bu fekkee da nga tek na yow do dem encourageant. Mais tu trop. Oui. Un défi. Franchement, défi, je ne sais pas Je veux dire, bon, état de santé, quoi, comment elle va En toute franchise, je ne sais pas je sais pas je sais pas là. Au en fait tu inspecteur de la mm, mm-hmm. on a longuement discuté. Mm, mm. bon je lui ai avoué que tu n'as rien à voir avec ce problème. Autrement que que tu n'es même pas capable de faire des filles filets bon parce que je te connais assez et puis on a passé la nuit ensemble durant toute la nuit on est bonnes. merci boy. Inquiète, c'est mon devoir. enfants. enfants. Tafa. Lève-toi. Tu es libre. Là Tu es libre. Badugu kasafau Chamun bopam Ken khamun jabara Badugu na chiao badugo ka sofa oh oh bitia mambo pam ken xamul